bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wasalla abada ala lisi bihi lana huda abada sayidna muhammadin wal ali wa sahbihi sayidna walil wali ah, mbokk yi noo ngi ñëwaat tey ci seen guddik mu mel ni tey ñu ngi ci guddik ñaar fukkeel ga ak juróom ñaar ñaar fukkeelu fa ah, guddi ak juróom ñaar ci weeru ñaar fukkeelu guddi ga ak juróom ñaar nag nee neen képp ko xam julli na ci fukki rakkaak ñaar fukki rakkaak ñaar mooy douze képp ko xam julli na ci fukki rakkaak ñaar ci guddig ñaar fukkeel ga ak juróom ñaar nga julli ci fukki rakkaak ñaar nee na ba ci nekk nga jàng fatiha jàng inaa ansalnaahu fukki yoon inaa ansalnaahu fukki yoon ndax boo xoolee guddi gi sax mooy tombe guddig laylatul xadar guddig laylatul xadar kon fukki rakkaak ñaar ngay julli rakka bu ne nga jàng fatiha jàng inaan sal naa fukki yoon ah, nee na suñu borom subhanahu wa taala des na ko bindal tuyaaba ju toll ni limu bisi bisi ci adduna yëpp maanaam ah, kon la dalee bu fii bis bu fi mos a jaar rek ba adduna yi tukki bis yëpp suñu borom dana ko bëri bindal ko ay tuyaaba mooy limu bis yi ci adduna bi yëpp ah, te bu dekkee ca mboolem yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci lañ koy boole maam ci ñiy ànd ak yonent bi di ko gunge muy dugg àjjana yow ci mboolem moom ci ngay bokk kon loolu mooy euh, tiyaaba yi nga xam moo aju ci guddi ñaar fukki ak juróom-ñaar asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu